jërëjëf euh, euh, euh, jërëjëf maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm ci invitation bi di nuyu également seen internet yëpp. waaw xëy na balaa may ñëw ci loolu nga may ma ma ndokkeel waa Sénégal dañu génn ci julli gi di leen baalu àq di leen baal àq euh, di ñaan suñu borom may ñu ñu teewee ko déwén yu bari et puis mu sàmm ñu sàmm réew mi sàmm njaboot gi comme ni nga ko waxee dañu nekk ci période du campagne électorale euh, jëmale ko ci élection législative élection législative nag mooy élection bi nga xam ne day fal député yi dem ci pencum ndawu réew ñi euh, ñun ñu bokk coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne président mooy président Macky Sall ñu am euh, suñu ay list am suñu ay candidat ñun ñu bokk ci fi ñuy wax département de Dakar département de Dakar am juróom-ñaari député yoo xam ne dañ leen war a tabb ki nga xam ne mooy suñu tête de liste mooy le ministre Alioune Ndoye moom mooy maireu Dakar Plateau nekk également ministre de la pêche mais mu ànd ceeg équipe bu bëri euh, juróom-ñaari nit ñoo ñuy représenté mais juróom-ñaari nit yooyu yëpp ñun jàpp nañ ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar la ñuy représenté mais léegi nag lu gën a sori loolu dañu jàpp ne département Dakar la ñuy représenté ndax euh, département Dakar euh, président de la République daf fi def investissement yu am solo moo xam ci wàllu ndox mi la l'accès à lo parce que kenn umpalewul ne réseau ndox biir Dakar rek boo ko doon nat mën nga ne toll na ci 6000 kilomètres day mel ni nga jóge fi dem France noonu la réseau euh, ndoxu Dakar toll te yooyu président am na investissement yu am solo pour que population Dakar yëpp mën a accéder à l'eau ndax toujours dañuy dégg day am ay jafe-jafe te fii concentration la donc loolu benn la mais ni mu amee concentration ci wàllu boobu la amee concentration aussi ci wàllu dem beeg dikk bi ci nit ñi moo tax TER bi dañ koy rafetlu bu baax. balaa ñuy euh, ci réalisation bi kon nañ taxaw d'abord. Euh, mhm. ni ngeen di campagne fii ci Sicap Liberté parce que gis nañ ne campagne bi démarré na depuis le 10 mais boo xoolee Sénégal day mel ne campagne am. ah alhamdulilah ndax ñëpp a ngi doon ragal campagne bi nekk campagne violence gis nga li ñu ci commencé nemmeeku metti na lool may ñaan acteur politiques yi kenn ku nekk mu delloo si sa xel parce que campagne aajuwul dóorante bu nit ñi doon dóorante di reyante fii ba suba du tere nit ñi bu ñu demee ba war a tànn dañuy tànn li dal seen xel mais bu ñu jàppaay ne campagne amul mën nañu juum campagne am na ñun tey ci biir Dakar suñu candidat mi ngi wër fu ne lu weesu suñu candidat bi nga xam ne mi ngi ci département bi ñun ñi nekk ci communes yi aussi ñi ngi dugg fu ne ñi ngi dem di wax ak nit ñi ci li fi président Macky sàll liggéey ak ci lim fi nam def ak yan anamu député la ñu war a jël yóbbu leen ci pencum ndaw réew mi parce que yàq bi dafa bari manipulation bi dafa bari ëlbati jëfu président Macky Sall dafa bari moo tax pour loolu ñun xuloowuñu ci xeexuñu ci mais saa suñu xëyee depuis bi campagne bi ubbee ba léegi ñi ngi dem ci ñi ñu dëkkal di waxtaan ak ñoom wax leen li fi ne wax leen li ñu bëgg def recueillir mooy porte à porte stratégie bi ñu nekk di def mooy porte à porte dem waxtaan ak nit ñi surtout que ci wàllu investi yooyu ma la doon wax ñun SICAP dañu am investi euh, Tamsir Soxna mooy suñu candidat président cëral ñu ñun waa SICAP boole ko ci liste national bi ñu war a am ñaari taxawaay moo tax ba ñu ngi ànd ak moom ànd ak aussi santi seen añ ànd ak mboolem responsable yi ne ci commune bi ñuy wër diggante liberté 1 ba liberté 6 extension Baraka euh, fépp foo xam ne war nañ fa dugg ñu dugg fa wax ak nit ñi pour majorité bi nga xam ne dañ ko pertoon ci local yi ñu mën ko jël au profit de la liste du département de Dakar. état d'esprit bi moom dañ koy rafetlu parce que population yëpp nee nañ rëccu nañu li ñu seetaan ba mairie bi dem ci yeneen loxo. parce que tey bu doon seen sago mairie bi ñun lañ koy jox ndax li ñu nekk di def ci commune bi jege biñ leen jege waxtaan bi ñuy waxtaan ak ñoom ak jëflante bi ñuy jëflante ak ñoom wan na leen ne euh, ni ñu diviser woon suñu force yi nekkul woon lu baax si ñun kon tey li ñuy dégg bi ñu commencé campagne ba léegi mooy une forte adhésion ci liste Benno Bokk Yaakaar bi mais surtout une forte adhésion ci politique yi nga xam ne président mi ngi koy def ak posture bi nga xam ne am na ko ci jamono ji nga xam ne ñi ngi def ay allégation ci kawam di wax yoo xam ne amul di jéem a këpp suuf ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def mais sant nañ yàlla bi nga xamee ni nit ñi seen bopp ñi ngi ràññaatle et puis ñi ngi jël aussi seeni position pas revanche revanche boo ko déggee day fa fekk day mel ni euh, dañ la mën mais ñun lu ñu li ñu gis waa xam nga loolu dafa di ñun ñëpp ànduñu woon euh, ñun ñëpp kenn ku nekk dafa beroon sa waa sa bopp te loolu aussi ci élection locale lu nit ñi mën a comprendre parce que toujours ku nekk danaan man maa gën a jëflante ak sama askan mais tey kenn umpalewul ne boo jëlee résultat yi majorité présidentielle bi am moo ëpp fuuf c'est deux tiers Euh, de de l'électorat voire trois quarts de l'électorat kon loolu premier défi bi mooy ñun d'abord ñu fexe nu ñu àndee nekk benn parce que élection yi ñu jëm du élection zara du élection Tamsir du élection keneen élection réew mi la ndax euh, foo xam ne fa la ñuy voter budget Sénégal budget Sénégal mooy liy tax nit ñi mën a faju mooy lii tax baykat yi mën a bay mooy lii tax école bi mën a jàng examen yi ñuy def concours yi euh, subvention yi ñuy def accompagnement bi ñuy def loolu lépp ci budget bi lay jóge te budget boobu assemblée lañ koy voté kon dafa mel ni élection bi ñëpp la concerné kenn ku nekk war a wut nag ay soldats yoo koy nekkal ca chambre mooy ñoo xam ne ñoo koy représenté ci pencum ndaw réew mi foog naa booy tànn di nga tànn koo xam ne au moins buñ demee ba fal ko di nga ko gis assemblée mais gis nañ fi euh, député yoo xam ne du ñu teew mukk assemblée wala bu ñu teewee assemble pour xuloo la pour xarab la. mais yéen a nekkoon majorité à l'assemblée nationale. Mhm. mandat bi jeex te boobu ba léegi gis nañ ne assemblée bi bokk na ci assemblée bi sénégalais yi gën a won ginnaaw tey pour nga convaincre tey population bañ mën leen voter lan nga leen di wax. waaw non pas assemblée boo xam ne sénégalais yi daf leen won ginnaaw. non parce que assemblée li muy def mooy voter ay loi assemblée li muy def mooy def réglementation législation mais nañu xool tey treizième législature bi en terme de loi yoo xam ne dafay renforcer démocratie dafay def avancée démocratique ñaata la toll man mii di wax ak yow rek assemblée votel nañ ma à l'unanimité loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire te loi boobu tey député yooyu ko voté mais dafa baax pour askan ndax loi la boo xam ne danaan képp koo xam ne da nga néew ji doole ñu fexe ba fa nga ne njëriñu état mën la dal loolu bu dee ne serait-ce que pour cette loi là mënuñu wax ne député yi paskan bi dañ leen woon gannaaw wala nekkaluñ fa askan bi mais xëy na loi yu gën a am importance pour société bi bu ñëwee assemblée parce que yéen ay majorité mécanique bi da ngeen koy rejeté du jàll. non majorité mécanique amul yooyu mooy andi xam nga majorité mécanique amul dinaa ñëw ci ñaari fànn ci loolu premièrement bu fekkee ne dañ ne majorité mécanique dafa am assemblée kon d'accord nañ ne aussi majorité mécanique moo am ci mairie yi opposition bi jiite parce que foofu lu ñëw day jàll. donc comparaison du du foofu du euh, majorité bi assemblée bi loi yi ñu fay indi président la askan wi fal ne ko yow la ñu wóotu dafa dem jongante présidentielle askan wi fal ko. mu ne nañu wut député yoo xam ne ñoom ñoo may gunge ci liggéey boobu may def mais député yi naka la xel mën a nangoo donte bokkuñu waaso ak président mu indi loi boo xam ne pour askan wi la ñu ne ko duñ ko voté kon kay bu dee loolu bu ñu voté budget bi donc du am majorité mécanique mais c'est une cohérence dans l'action l'autre élément mooy ci am na loi yoo xam ne dañ ko vote contesté ko mais ça c'est le jeu de la démocratie en assemblée foofu nga xam ne mooy penc mi dafa am ñu ànd ak pouvoir bi am ñu ci opposé am ñoo xam ne faruñu fenn mais ça c'est la loi de la démocratie te lu tax foofu mel noonu mooy askan bi parce que assemblée bu ñu fàtte ne c'est l'émanation de la population li population yi bëgg loolu la ñuy retrouver assemblée bëgg nañ ñu criminaliser loi bu jëm ci góor jigéen mais lu mais mais mais loi criminalisation gis non parce que ñun euh, da ngay segg ràññaatle li nga xam ne débat politicien la ak li nga xam ne mooy réalité loolu bokk na ci non ba léegi même chose mooy fonctionne xam nga loolu débat boobu kañ nga koy dégg saa bu ñu dëgmalee élection ngay dégg ne ñu indiwaat débat sur l'homosexualité kon xam nga ni ñiy def débat boobu loolu du lu yitteel askan bi débat boo xam ne da ngay natt sa période ne xaaral ma yàq xaaral ma manipuler loolu du problème bi mais fii depuis que le Sénégal et Sénégal mais ça c'est euh, c'est dans le code pénal li nga xam ne dafay encadrer les mœurs et les valeurs c'est dans le code pénal donc c'est comme si on demande d'enforcer une porte ouverte te li ci président wax ak li mu ci def comme acte mais nañ ma génneel ku ko sañ def fi dégg naa sax ñenn ñi bépp lien bu ñu amoon ci réseaux sociaux yi ci lu jëm ci wàll boobu ña ngay gaawantu di ko effacer mais président li mu wax dafa leer bàyyil ma ñëw ci li président Macky Sall wax parce que man li président Macky Sall di def moo ma ñor moo ma ñitteel euh, Barack Obama bi mu ñëwee président lan la wax si homosexualité Idrissa Gana Gueye bi moo ci gën a jege mhm. mais bi ñu ko defee président dafa génn wax donc ça c'est un faux débat. Ah, moo tax ma ne wax gisoo ne wax kese dafa yomb mais mënu ko appliquer avec l'acte. mais xanaa enfoncer une porte ouverte <laughs> enfoncer une porte ouverte déedéet euh, bunt bi tëj nga ko. Mhm. ak caabi mais déedéet dama bëgg nga vachette ko nga korose ko ba pare nga dollil ma si nga dollil ma si courant ah non askan wi bëgg ko il faut nag différencier entre li politiciens yi bëgg ak li askan wi bëgg. woote boo amoon place la bëri dafa fees dell. waaw mais yéen si seen si seen antenne yi la ñu dégg nit ñi naan man ceeb bee ma fi indi man suukar see ma fi indi man mbumbaay bee ma fi indi. <laughs> loolu ñoo ko déggandoo. donc yéen am ngeen part de ci lan bu dañuy dem ba manifestation di wax ceeb bee ma fi indi. mais dama jàpp ne loolu mooy démocratie. donc am ngeen amuñu ci part de responsabilité. parce ko gérer woon nu ngeen ko war a gérer est-ce que toll foofu. waa réew mi niñ ko gérer mën naa la ci jox benn exemple. mais balaa loolu damay wax ne ñun loolu boo amee. Mhm. dañuy sant yàlla parce que mooy firndeel ne démocratie am na fi. mooy firndeel ne liberté am na fi xam nga loolu débat la ñu naan fii amul démocratie dañu noot nit ñi mais am na réew yoo xam ne sañoo fa wax mais fii les gens parlent librement et heureusement ni ñuy waxee librement le gouvernement et le président de la république ñi ngi à l'écoute des populations et ñi ngi apporter des solutions ñun loolu moo ñu fi bàyyi saa su ne ñuy dégg nit ñi lan mooy seen xalaat lan mooy seen mbébét ñu ci jéem a indi saafara mais nan la ñu téye réew dama la koy jox ci exemple contexte bi ñu nekk xam nga ñu ngi ci crise ndax guerre bi am Ukraine crise bu metti la waaw waaw mais soo xaaree bu ma waxee ba pare di nga seet ndax Ukraine laa ko yóbbu ah kon bàyyil ma wax internet yi comme yow xam nga ko bàyyil ma wax internet yi fi ma jëm hmm? parce que bi ñu génnee bi ñu nekkee ci Covid bi mhm. ñëpp naa ñu Covid à bon dos Covid à bon xam nga Covid bi kenn planifié wu ko kenn programmé wul woon ne Covid day am pourtant gouvernement bi génnee na 1000 milliards ci budget delloo ko askan bi guerre bi aussi bi mu ñëwee ñu ñëpp kenn planifié wul woon ne impact économique yi dinañu dal parce que bëri na ci lu ñuy jëfandikoo fii ci réew mi dañ koy jéggaani li ñu produit pétrolier yooyu ñuy jéggaani ci la ñuy defar courant bi produit yooyu ñuy jéggaane ci la ñuy defar essence bi am na yeneen céréales céréales yi ñuy jéggaani Ukraine ci lañuy defar mburu meeg yeneen yu ni mel mais yooyu seen njëg dafa yokk boo demee tey fu mel ni Amérique lu doon jar ñaar fukk juróom-ñett fukk lay jar mhm. mais pourtant ñun courant bi yokkul mburu mi yokkul am na yeneen ak yeneen yoo xam ne yokkul non mburu bi wàññi nañ ko fi jarul muy yokk parce que facture bi déjà dafa salé non non non non xam nga ndox mi aussi dafa seer non mais fa mu nekkoon la ne te nee naa la yeneen réew yëpp inflation bi c'est fa par huit gis nga tey fii ma toog di wax ak yow mhm. hmm, bi keeru Ukraine bi commencé léegi mhm. euh, dugal nañ état bi dugal na ñetti téeméeri milliards ci subventionné pour prix yow yi ngay wax mu des fi mu des te bu buñ ko mottalee fii ak décembre dinañ ci dugal juróom téeméeri milliards mais boobu sori na revalorisation salaire u yi nga xam ne c'est du simple au double du simple au am na indemnité yoo xam ne cinquante mille la woon mu dem ba deux cent mille am indemnité yoo xam ne quatre vingt mille la mu dem ba cent vingt mille wala cent mille loolu yëpp mu dem ba toll ci cent vingt milliards fan la jóge li ngay wax dund bi dafa yokk bu yàggul rek subventionné nañ ceeb bi ci vale bi nga xam ne fii lañ ko bayee dolli nañ ci 30 francs le kilo pour subventionner accompagner producteur yi mais wàññi nañ fii suukar bi bu yàggul ak yeneen mbir yi guerre bi moo tax mu tar mais un mois avant guerre bi di ñëw prix yi wàññeeku nañ non rombul fa mu ne nag <laughs> ndax que dañ ko subventionné loolu mooy ci li ju ne nga àttana jël lu tollook juróomi téeméeri milliards du ay milliards parce que des fois booy wax milliards nit ñi dañ naan milliards rek lay dégg mais boo leen ne diw bi waroon na toll tey ci ñaar téeméer te ñu téye ko ci ñaar téeméer ci ñeenti téeméer ñu téye ko ci ñaar téeméer wala ci ñaar téeméer ak ñeent fukk la ca yokk yëpp état bi daf ko génnee ci gafagaam te bëri na secteur yoo xam ne taxe yi nga xam ne l'impôt bi nga xam ne état bi fa la ko doon jëlee pour mën a alimenter budget bi da leen ko bàyyee tey boo demee ci farine bi lépp luy taxe si mburu mi dañ ko bàyyi ba pare accompagner leen à hauteur de 4 milliards meññee yaa ngi may dégg pour ñu mën a ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne su dul woon teg macro macroéconomique yi maanaam li nga xam ne état bi mi ngi koy anticiper di ko liggéey ci wàllu infrastructure ci wàllu production bu muy mën a jur koom bu mën a téye réew mi defuñu ko kon du dem kon ñun ci loolu lañ ne loolu ñu ne nag liñ ci d'accord mooy instant yi enjeu yi dafa bëri difficulté yi dafa bëri tarandoor ci àdduna bi yëpp donc da ngay def priorité. instant li ngay wax nii ñu bëri buñ ko déggee xam nga lan la ñuy laaj. est ministre moom dina dem boutique ba di jëndi. man waxuma la fu weesu boutique damay dem marché. man wóor na ma ne. kilo carotte xam nga ñaata lay jar. kilo navet xam nga ñaata lay jar. Ah, kilo ripaas. jën ña euh, deux cent cinquante. mais attends léegi mu ngi jar trois cent cinquante. ripaas bi ripaas bi tabaski bi saako bi à l'échelle mondial bi ñu bi prix yokkee quinze mille francs la doon jar. état bi subventionné ci dix mille muy jar cinq mille. demal ci pàkk yëpp pour ñan la ko subventionnel. non ñoo xamante dañu andi woon xar doon jaay. non non c' pour tous les éleveurs te. li ñuy seetlu mooy quatre vingt pour cent yor boutique du ñu ma ñëw xam nga tey ku dëkk da nga dugg yor xaram ci boutique ci jënd. non non non non bu kilo lay jënd ñu jaay ko il faut pas faire d'amalgame bu ñu waxtaanee rek dinañ déggoo. Mhm. parce que xam nga tey li ñu jar a rafetlu mooy production locale ci xar bi dafa commencé amplifié wu. daanaka quatre-vingt pour cent ci li ñu consommé ci xar ci tabaski bi fii la jóge d'ailleurs boo rombee ñiy jaay xar yëpp ay xaru yar nga fay fekk ministère de l'élevage bi nga xam ne mooy ravitailler yi ñëpp moom mooy jël génne kotaay donc amul ma sàmba amul ma demb ñëpp ils ont eu le l'aliment de bétail subventionné di jëndee saako bi 5000 mais loolu gënul sax neex. xam nga lan moo gën a neex def contrôle ñu topp loolu. waaw mën nañ ko gën a xool. Eh, man li ma lay wax nii lu wóor la ak li ma xam. loolu service ministère du commerce yi dinañ ko gën a xool mais yéene état bi moom li muy def man loolu laa mën a indi. léegi nag loolu comme ni nga ko waxee dinaa ko wax sama naataango ministre ne ko ah man gise nag ku ma ne nangam am na dina ma ci mën a indi leeral. mais ci wàllu ripaas boobu mhm. li gënoon jafe mhm. du woon subvention bi de mhm. li gënoon jafe mooy nga gis ripaas bi ndax dafa amul woon ministre de l'élevage li mu def ba mën a am tonnage bi mu am pour mu ñëw mu approvisionner marché nationale mais loolu rek prouesse la te loolu xam nga lan moo ko indi crédibilité réew mi gis Sénégal dafa am crédibilité boo xam ne bu demee di wuti keneen dem di wuti dañ naan balaa ñuy jox kenn dañuy jox Sénégal ba pare loolu aussi dañ ko war a natt problème bi du ñu bàyyi ba tabaski jege wala ba tabaski des un mois pour ñu ravitailler nit ñi euh, en repas wala leneen ak leneen mais dafa war a doon loo xam ne dafay continuer. waaw mais xam nga pour le moment li ñuy wax ci ay fee la bu ma ne woon tey su euh, fii ak weer wala ñaari weer dinañ def loolu ngeen ne ma digg rek ngeen di def mais au moins li nga xam ne teew na ñu indi ci saafara man ci loolu rek laa mën a wax. donc moo tax ma indi wàllu tabaski bi. meew bi seer na suukar si seer na café gi seer na café bu doon jar vingt cinq francs déjà existeetul. Ah. cinquante francs lay mais mais quarante francs lay jar quarante francs sachet bi stick bi quarante francs lay jar. doo jënd meew cent francs. <laughs> mais parce bu doon jar cent 125 lay léegi xoolal stick bi donc néew ci doole ji amuñu ñun ñooy. waaw mais man maa ngi lay corriger stick bi 40 francs lay jar Nescafé bi. est-ce que yaa ngi def waaw 40 francs xaaral rek ma ñëw. <laughs> stick bi 40 francs lay jar maa ngi def vérification bi ba démb ma wax la ñaata façon meew moo am. mën naa la wax de xalib am na lekra am na. mën naa la wax meew yaa am yëpp mais <laughs> waaw mais <laughs> kay bu ñu jaayee cent franc cent vingt cinq xam nga lu tax xam nga lu tax bu doon jaayee vingt cinq franc di la ko jaayee cinquante franc nga lu tax publicité boobu ngay wax ndox ndox l'eau source de vie hmm. bu ñu doon jaayee sachet bu ndaw bi cent franc hmm. boo demee huit la koy jaayee non sachet ndox amul cinq cent sachet vingt cinq moo am ak sachet fukki dërëm mën nga jël sachet bu mag bi bii def vingt cinq pat xam nga ne xam naa li xew. mais léegi boo demee boutique xam nga xam naa li xew. Euh, boo gisee yaa ngi ma naan bul publicité mais wax foog nga koy étayer. parce que man xam nga mhm. secteur bi ma yor. Mhm. secteur inclusion lu tudd. Mhm. c'est un secteur informel. te même bu dul loolu. man ci réew mi laa bokk yow tam jàmbaar. fii nga ma fekk nii bu ma génnee ñi yor boutique yëpp xam naa seen tur donc problème bi nekkul foofu problème bi tey les enjeux su fekkee dañ koy yóbbu ci niveau national bi ñu war a ne mooy disponibilité produit parce que tey nit am na ressource bëgg jënd produit du ko gis donc première kii bi mooy ah, disponibilité produit ma ñëw no non ma ñëw non ça c'est une deuxième phase mën nañ ci ñëw mhm. première phase disponibilité boobu est-ce que xam nga l'État a ses réserves yoo xam ne toujours il y un point en conseil buy wax la disponibilité des produits mhm. de nécessité de première nécessité mhm. donc suñu réew toujours dans le cadre de la planification day am un stock une réserve boo xam ne ça permet aux gens ñuy mën di dérouler sans pour autant que ñu am yenn euh, yenn jafe-jafe loolu c'est un premier élément pour loolu c'est une planification l'autre élément mooy le pouvoir d'achat wax naa la déjà mesure de sauvegarde de subvention yi ñuy def pour le pouvoir d'achat mais au-delà de ça yenn politique de gratuité yenn politique d'accès yi nit ñi di def yëpp mais loolu yëpp danga nga koy dugal ci gafaga xam nga bi may def sama tournée yi am na ñu ma ne ñun temps wu Covid bi ndimbal yi état bi doon joxe gisuñu ci seen bopp ma ne leen pourtant état bi toog na fi ñaari weer fay courant loolu ku ko moom état bi toog na fi ñaari weer fayal nit ñi ndox donc. Euh, action wu état ci population dafa am de manière direct ak de manière indirecte maintenant comme vous dites loolu ñun ñëpp a ci d'accord parce que sànq xam naa loolu nga ma bëggoon wax da ne woon li li nga doon xalaat mooy ministre ni muy waxee nii est-ce que mi ngi dëkk Sénégal mais man fu raw Sénégal laa dëkk maintenant moo tax ma ne d'accord nañ ci ne euh, yaa war nañu gën a mën a def pour yëf yi gën a mën a yomb mais li ñu wax mooy li ñuy def déjà nañ ko wax résultat yi nga xam ne kenn mënu ko naatable c' est positif et ça impacte positivement les populations nañ ko wax maintenant on identifie les difficultés ñu seet nuñ koy defee loolu nag ñëpp ci am part de responsabilité état bi am na ci part de responsabilité mi ngi def li ñuy def mais gis nga pour bañ ñu naan méca majorité mécanique ak waaw ñii ñoom ñoom ñoo far lu leen neex la ñuy def bu waxtu tànn jotee da ngay tànn li gën. moo tax élection législative yi ñu jëm man damay ñaan population bu ñuy tànn nañu tànn li nga xam ne dal na seen xel bu ñu tànn loo xam ne day taal réew mi bu ñu tànn loo xam ne danga naan par la force li ma bëgg dama koy def nañu tànn loo xam ne dañuy jàpp ne réew mi ak quelque que soit le boor bi nga féetee ñëpp a ci bokk yem kon ku ne def ci war a dugal loxoom pour tabax ko pour man nag mhm. liste bi gën mooy liste Bennoo Bokk Yaakaar te li tax ma koy wax aussi c'est pas parce que Bennoo Bokk Yaakaar laa bokk mhm. parce que am na lu tax ma bokk Bennoo Bokk Yaakaar loolu la ñu war a seet li tax ma bokk Bennoo Bokk Yaakaar mooy dama gëm ne li muy def pour askan bi la mhm. c'est pour le bien de la population ma dugg fa di ko défendre kon tey bëgg nañu am député yoo xam ne mais saa boo demee assemblée da nga leen fay fekk parce que balaa nga naan naam ne fa te député pour mu défendre la foog saa yu assemblée amee session mu dem fa mais da ngay gis député yoo xam ne da ngay dem commission technique doo leen fa gis te ci commission technique la ñuy waxtaanee lépp loo xam ne yow en tant que ministre indi nga ko wala indi nañ loi wala indi nañ leneen foofu la ñuy toog càmbar point virgule mais député looloo tax ñu fal du pour leneen li tax ñu fal ko mooy lépp lu ñu indi loo xam ne ci liñ ko jëmale ci askan wi nga mën ko càmbar point par point mais yow fi ñu koy càmbaree nekkoo fa nga bàyyi ba plénière jot nga ne caméra yi ñëw nañ nga ñëw taxaw di saaga président Macky Sall yow nekkaloo fa askan wi sa bopp nga fa nekkal moo tax population yi bu ñuy tànn nañu xool ci seen gox yi ñi nga xam ne bu ñu sonnee dinañ leen gis bu ñu bëggee faju ci ñoom la ñuy dem bu ñu amee problème wala am soxla wala am difficulté dinañ leen mën a gis pour diis leen seen soxla. da nga ne ñu voté liste bu am dafay taal fii dafa am liste yuy taal am na liste yuy taal réew kay. mais duma leen publicité hmm. li ma defal meew yi duma ko hmm. defal liste boobu parce que amaana ñoo xam ne xamuñu list boobu man nañ jàpp ci Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar bii daal mooy affaire bi. def nga transition bi donc nañu dugg directement ci loo xamante ne moom moo nar taal réew. muy jàpp ay nit yóbbu leen mandat de dépôt ñu nekk en détention ñu jékki-jékki kenn comprendre ñu ñàkk seen bakkan ku mel ne François Makambu ban position nga am ci lu mel noonu. Euh, dégg nañ procureur génn na wax na sax mais sooy xool Sénégal boo jëloon cent personnes 97 yi d'accord wuñ. waa xam nga man loolu position bi ma ci am c'est une position de principe. ndax jàpp naa ne et c'est regrettable damay profité di jaale njabootam euh, di bokk ak ñoom naqar bi di leen ñaan suñu borom may leen xolu muñ ndax man euh, ci presse bi laay dégg ñu naan moom mi dem ci xeet nangam la bokk. loolu mais xam nga mais non même pas force spéciale loolu kii la rek day mel ni ñu journalist mm-hmm. wala leneen du loolu mais man. li ma jàpp mooy sénégalais la sénégalais loolu premier élément man loolu laa jàpp c'est un sénégalais qui est parti dans des conditions qu'il faut qu'il faut éclairer mhm. c'est avant nous sommes avant tout mhm. tous des sénégalais mhm. c'est des conditions il est parti dans des conditions qu'il faut éclairer parce que nous sommes dans un état de droit kenn ku nekk yoon daf la may sañ-sañ jox la àq jox la yelleef léegi nag dans cet exercice là lu ne mën na ci xew comme lu ne mën na ci xew moo tax ñu teg yoon nekk yow del atte bu lu mel noonu amee kenn rek moo mën a wax muy yoon loolu ñun ñëpp ci d'accord bu yoon waxee ñëpp dañ ci war a tënku kon man maa ngi toog déglu lu ci yoon wax mais ci sama appréciation personnel bopp xam nga lan laa wax ma ne c'est une situation très regrettable mais lii xew na fi xewati fi xew na fi xewati fi non pas mosul am yoon loolu yow yaa ko mën a wax mais boo demee fañ koy waxee xam nañu ndax yoon am na fi wala am fi notre pays là depuis mille cent 1960 mi ngi fi xanaa duñ ma ne léegi rek la yëpp yàqu li tax ñun ñu mën ak yow ñu toog fii mën di wax c'est parce que dafa am lu fi am depuis 1960 ba tey nit ñi nag dañu fàtte loolu dañu jàpp ne ñenn ñi dañu jàpp ne ñoom bi ñu juddoo la la la ñu war a mën a ñëw defar parce que ñun ñi fi nekk. ak ñi fi ne woon xamuñu dara defuñu dara man loolu duma ko jàpp man ma première fierte c'est mon histoire parce que histoire boobu moo tax ma am présent tey te mooy tax ma am passé mais ñi dem ñëpp boobu kon fu yoon nekkoon ñooñu kon ñuy wax noonu ñoom voilà yi non duñu woon dara daf leen dal rek oui c'est fini il faut qu'on arrête il faut dafa am sujet yoo xam ne euh, kenn waru euh, ko politiser euh, dafa am lu fi xew. Hmm? xam nga lu fi xew mooy la mooy dañ ko seetlu ci dernier temps yi nii ñu nekk depuis euh, année yi ñu jàll affaire Sweet Beauté ba mu fi amee quatorze personnes ñàkk nañ seen bakkan ba léegi gisuñu yoon def li mu war a def te chaque fois dañ naan yoon war na def li mu war a def on a vu convoqué nañ tout le monde ba mu des Ousmane Sonko depuis bañ ko bëggee jàpp askan wi ne jaay doole la ba tey kenn ñameetu ko woo. la dernière fois manifestation woote nañ ko ngeen bañ ko gàntal ko bañ ne du fi am ñeent nit encore ñàkk seen bakkan ñaar fii si Ndakaaru ñaar fële si Ziguinchor te boobu ba léegi yoon deful li mu war a def suñu ñàkk seen bakkan récemment Mamadou Seck jàpp nañ ko ñu annoncé ne dafa dee ñu xëy ba ñu annoncé dafa dee après ay heure administration pénitentiaire def communiqué ne waa ji dafa rëcc deewul dafa daw ñu xëy ñu annoncé ñu mooru François Makambu te boobu ba léegi yoon deful li mu war a def. kañ la yoon di def li mu war a def c'est nag euh, yow dafa am affirmation yoo xam ne yaa ngi nekk di ko def dama la koy bàyyee comme yow mën nga xam li yoon di def. ak li yoon di def moo tax attends non non yoon non tooj naa nit attendez yóbbu nañ ma ci yoon yoon àtte na def lu ci war mais dañu jàpp ne dafa am ay dossiers mu ngi fi tey bu foree ci nguur gi xëy na après liberté provisoire mooy am. non il faut pas faire d'amalgame xam nga réew kenn du ko yore noonu ñun ñi nekk ci réew mi aussi waruñu fonctionner noonu ay yoon def na liggéeyam yoon deful liggéey mais yow tey en âme et conscience muy man muy yow muy ñiy wax fii yëpp dañuy spéculer rek mais li yoon di def mënuñu ko xam li yoon di def mënuñu ko xam. maintenant yoon boobu dañ ko war a xàjjatle ak politique li ngay wax nii c'est des commentaires politiques man du ma wax ci loolu parce que ñiy jëflanteeg yoon xam nañ ndax yoon mi ngi def seen liggéey ou pas ñiy manipuler nit ñi jàpp ne ñoom ils doivent être des intouchables xam nañu ndax yoon mi ngi def liggéeyam ou pas parce que attention tous ce qui brille n'est pas de l'or et toute la manipulation yi nga xam ne nit ñi ñi ngi koy wax mais il faut faire très attention man li ma xam en tant que citoyen mooy sama justice réew dama koy def confiance parce que bëri na lu fi am loo xam ne ñi ngi koy àtte li tax nit ñi di mën a jël yenn kàngam yi indi leen fii Sénégal ñu leen di àtte dafa am lu tax donc vraiment man je je je je comme recommanderais à que ñu bañ a ne waaw yoon def na liggéeyam walla yoon def liggéeyam ba pare mais naka nga mën a comprendre ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor en charge ces question ñu am la force de la loi avec eux xam nga tey yow ak man ak keneen yoon mayuñu ñu wax ci dossier bu nekk en instruction xam nga yoon mayuñu ko mais am na ñeneen ñoo xam ne mën nañu wax ci en dossier bu nekk en instruction mhm. léegi ñooñu nga xam ne yoon may na leen loolu ñu génn wax nga ne li ñu wax du dëgg waaw mais xam nga tey <laughs> xam nga tey bu ñu demee ba àgg ci réew boo xamante ne ba ministre de la justice génnee wax presque 97 pour cent des sénégalais duñ si ànd bu procureur génnee wax 97 pour cent des sénégalais. duñ ci ànd mais fan nga teg ne non fan nga teg ne. fan quelle la base. qui dit que tey su ma génnoon fii def micro trottoir ci yenn dossiers yi. Hmm. Ah, li may indi ci li négatif par rapport ak li yoon di liggéey. non vraiment no délire. non man xam nga loolu mënuma ci d'accord parce que quand vous dites 97 pour cent fan nga tegu pour wax ne 97 pour cent la un deux man su fekkee ne man rek la dama ko jël ci champ politique ñu ne ñun ñoo nekk ci majorité bi mhm. mais xam nga ne boo ma ne ci réew mi d'accord ñoo lii. du tegu mais yow ba léegi yéen a ci majorité. mais bien sûr. Hmm. parce que pour yow majorité fu ñu koy nattee. <laughs> bul ma wax élection yi. mais bien sûr. <laughs> mais bien sûr amul amul amul lenn loo xam ne si biir Sénégal mën nañ ne kii moo fi teg tànk lu dul ñu teg ko ci ay fee fee yi démocratie représentativité élection moo koy joxe bañ nañ ko ba tey mën nga def par les grands électeurs mooy nga xool gox goxaat yi wala nga def par les populations mooy nga dem ci suffrage et dans tous les cas nit ñi jox nañu bopp du ñu wax ñun de parce que nous ça importe peu dañu naan jox nañu bopp action wu président parce que loolu moo tax nit ñi nekk fi nekkuñu fi pour nos propres personne mais dañ fi nekk pour liggéey pour servir liggéey boobu ak service yooyu ñuy dox nit ñi cautionné nañu ko maintenant comme je dis il faut dissocier le brouhaha politicien de la réalité parce que soo fi waxee ay affaire Sweet Beauty wala nga wax fi affaire defuñu nii defuñu naa mais pourtant la justice suit son cours comment est-ce qu'on peut dire que justice bi amul affaire yii yëpp ngay wax ndeyu mbill gi ki ci mën a wax génn na wax mais depuis lors ban débat ngay dégg oui ils n'ont pas dit la vérité ils n'ont parce que pour man kenn ku nekk da ngay wax ci sa bon vouloir kenn ku nekk da ngay wax ci sa désir mais la justice elle doit être froide et impersonnelle parce que ñëpp la fi war a nekkal ñiy def euh, ñi nekk ci secteur boobu dañuy waat def sous serment kon kenn ku ci nekk na nga taxawee yow ak sa conscience kon ñooñu ñun ñi d'accord ne ñoom ñoo yore mbir mi foog ñu bàyyee te bàyyee leen ko ba pare génnee ci affaire politique moo tax man ma ne la li ma jàpp ci affaire yooyu mooy que ne d'abord c'est un sénégalais mu metti ma parce que je suis te mar man wala sama mbokk wala keneen mën nga nekk ci situation bu mel noonu donc foog ñu war a am loo xam ne day impartial loolu mooy benn ñaareel ba depuis kañ lañ fi commencé dégg ay xeet yuy beddi wante mais wax leen ci loolu fii biñ fi commencé nekk Sénégal ba léegi mës nañ fi dégg ñuy beddante xeet musu fi am lu tax du ngeen wax si lool bu fekkee ne dañ ne wii euh, dañu gis ne ñi nekk ci nguur gi dañu ragal kon jàpp naa ne ñi ragal du ñun rek de parce que ñi bañ a wax ci mbir mi bari na de ou bien. xam nga du journaliste yi ñoo ragal di wax moom yaakaar naa ne j'ai rien gis nga lii mooy yàq Sénégal parce que buñ ne tell rek dañ naan damm na man ba léegi tudduma journaliste dañ leen di wax lu leer <laughs> waaw tey ñu ngi nekkoon ci wàllum yoon parce que tey li ngay wax nii tey boole nañ ko tey ci li ñu war a waxtaane ñu ngi woon ci wàllum yoon xam nga boo tëbee tëb rek hmm. daanaka dafa mel na ne kuy attaqué tey usmaan Sonko mais yéen Ousmane Sonko ban problème ngeen am ak moom Ousmane Sonko bu génnee wax rek day bi mooy trembler. non d'abord il faut dissocier la république de la politique. la république c'est la république. est ñu nekk Benno Bokk Yaakaar wala APR nañ ko d'abord. mais bien sûr. ñun bañ nañ ko ba des fois dinañ ñu interpeller ci loo xam bu demee ba toog naan am na dossier maas teg sama cooñ. non non mais attention d'abord c'est le président vous parlez du président de la <laughs> république c'est ça. le président de la République constitution en même temps président du parti non ça mais bien sûr mmh. et on l'assume mmh. mais le président de la République moom la yoon jox ay prérogatives loolu ça n'a rien à voir sa président ni mu amee euh, l'armée am nangam am sangam la am aussi d'autres instruments ça ce sont ses pouvoirs régaliens ñun nous sommes une organisation politique Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bi en tant qu'acteur politique suñu yeneen naataangoo yi ñu seq langue politique bi dañuy waxtaan ak ñoom bu ñu ne yéen a def lii ñu ne defuñu lii yéen yéen a def lii ça c'est la vitalité politique donc c'est pas parce que ni mu nekkee fii moom noonu la fi keneen ak keneen nekkee maintenant nag ku ñu tuumaal nga teggi tuuma loolu moo tax su ñu waxee lu amul wala wax pour naxasaayal xelu askan wi ñu apporter les réponses qu'il faut maintenant ci turu Benno Bokk Yaakaar laay wax nag waxuma ci sama tur man parce que dama bokk secrétariat exécutif national APR bokk secrétariat exécutif permanent Benno Bokk Yaakaar bokk conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar mën naa ne gisuñu benn coalition fii politique boo xam ne dinañ ko xool sax suñu bët raf amul parce que gëm nañu suñu engagement gëm nañ li ñuy liggéey ci terrain bi mais surtout suñu leader suñu président coalition yàlla dogal mu nekk président réew mi mais mi ngi dawal programme boo xam ne askan waa ngi koy yëg te saa bu ko askan wi yëgee firndeel ne ko li nga tegu yoon bi nga tegu mooy yoon bi ñu gënal te da ko koy firndeel ci ay élection am ñaari point yu ñu dese te lu des ci waxtu bareetul dañu bëggoon euh, nga revenir tuuti ci Ousmane Sonko la dernière fois ba mu demee Ziguinchor li mu wax mu ne Macky Sall dafa contre waa Ziguinchor surtout ñu am yenn xam nga man loolu duma ci ñëw parce que nee naa la jamono campagne électorale laa nekk sama list laay jaay. du ma jaay listu keneen rawatina loolu ba ma ca waxee ba pare parce que bi mu waxee posé nañ ma ci laaj nañ ma nee naa man balaa may confirmer que analyser mu nekk lu xelu lu xel mën a jàpp nee naa la man pour man ñun ñëpp ay sénégalais lañ benn bopp lañ te aussi duma commetre commettre erreur jàpp ne ñoom ñëpp dañu ànd ak li mu wax parce que dañ ci am ay mbokk am ci ay soxna am ci ay borom kër am ci ay doom am ci ay jarbaat donc ñun benn lañ ñun seetuñu loolu moo tax loolu moom duma ci wax li nga xam ne daal xam naa ko tey mooy képp kuy fal député Sénégal nanga fexe fal député boo xam ne ay la yëwen liñ ko laaj te muy dem di dem ci plénière yi ak ci commission technique yi mu def ko mais koo xam ne yow da ngay xaar ba caméra yi ñëw rek pour ngay xaraba ka saaga loolu moom benn sénégalais waratu ko tànn ci député parce que député bi du la tabaxal tali du la tàllal làmp loolu du rôlu député loolu état moo ko mën député état mooy tabax tali mooy taal làmp mooy indi ndox mooy indi courant député liñ koy laaj mooy na nga taxawal sa gox na nga taxawal sa askan te saa boo gisee ne fii yoon war na fi ñëw wala làmp war na fi tàkk ministère ba yor loolu di indi budget pour ñu xaatimal ko ko nga xool ne ndax seet ndax yoon boobu nga soxla mi ngi ci. mais est-ce que yéen a ngi toog ci seen biir réunion ba jékki-jékki rek analyser ba xam ne jeunesse su Sénégal bi la plupart adhéré nañ ci cause Ousmane Sonko bu mu leen di woo. mais xam nga réew mi nag yow tamit sëñ bi ku nekk fu la neex ngay dem ñun meluñu noonu de ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañu ne ku dem Benno Bokk Yaakaar ñu rey la ñun bokkuñu ci loolu parce que am na fii ci réew mi ñoo xam ne dañ ne kenn du fi ànd ak président Macky Sall te jàpp nañ ne bu ñu demee élection président Macky Sall nar a gagné ñu jël pouvoir bi par la rue loolu waxu leen ko loolu benn la loolu loolu benn la ñaareel ba mhm. Le président Macky Sall, en 2019, a gagné l'élection présidentielle à plus de 58 pour cent. réew mi du dañ ne jeunes yee ëpp mais bu jeunes yee ëppee président mënul gagné à plus de 58 pour cent kon ku jàpp ne ay ndaw ànd nañoo ak yow rek xamal ne ndaw yi ëpp président Macky Sall la àndal moo tax mu mën a gañe au premier tour. léegi nag li si des comme ni nga ko waxee mooy gën a xool naka la ñu war a gën a accompagner jeunes yi ça c'est une réalité. te ce n'est pas qu'une réalité sénégalaise c'est une réalité africaine voire mondiale aujourd'hui li nga xam ne dañ ko war a def en direction de la jeunesse lu am lu taxaw lu wér la nan lañ ci war a taxawee lan lañ ci war a def à l'échelle individuelle à l'échelle du gouvernement à l'échelle des exécutifs locaux nu au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci xalaat déjà programme mu xëyu ndaw yi lu ci am solo la président àttana yëkkati ñeenti téeméeri milliards ak genn wàll si ñetti at at mu jot mu yëkkati fanweeri milliards dugal ko ci xëyu ndaw yi loolu plus la te loolu mu def bokkul ak programme yu bëri yi nga xam ne mi ngi ci sectoriel yi te yooyu nekk ay programme yuy impacté jeunes yi kon léegi li des mooy ñu gën ko yaatal parce que c'est une demande forte li des mooy ñu gën ko dëgëral te loolu dinañ ci taxaw. waaw bi daanaka lu ñu joxoon ci waxtu mu jeex mais est-ce que force spéciale xam nga la. déedéet. gëm nga ne am na man force spéciale li ma si xam mooy commando yi may gis si défilé yi rek mais ñu jàpp di leen woowee ay force spéciale présumé force spéciale. xam nga loolu laa la wax Sénégal secteur bu ñu laal rek yaa a 17 millions d'experts. man li ma expert laay wax li ma expertul duma ci wax boo ma laajee microfinance ma wax la boo ma laajee économie sociale et solidaire ma wax la boo ma laajee ci force de défence de sécurité wala spéciale wala lu mu mënti doon lenn rek laa ciy wax maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que ñu ngi ñuy sàmm mhm. ñu ngi sàmm suñu kaaraange ñun bu ñu tëddee di nelaw guddi ñoom ñoo nekk ci frontières yi di saytu di xool pour kenn bañ ñu faagaagal ñun ñi ku ci jaaxle ci ñoom ngay dem ku ci am problème ci ñoom ngay dem ku ci am comme li liñ fi wax sànq aussi ñoom ñoo koy saafara kon man buñ ma waxee ci loolu ci loolu laay tontu maintenant sa n'exclut ça n'exclut pas que mu am ay force occultes mais dama bëggoon xam rek est-ce que tey. Mhm. yow gëm nga li ñuy wax am na wala amul. non man xaw ma sax lan la ñuy wax man maa ngi ci campagne bi <laughs> pour que ñu fal list Benno Bokk Yaakaar yaa ngi ngi xam lu xew. waaw ah. yaa ngi ci ci gouvernement bi. waa donc war nga xam li ñuy wax. non li ñuy wax ci gouvernement bi. jàpp naa ne yow sa bopp nangu nga ne duma ñëw fii ci télé bi di ko wax mais dañ jàpp nañ ay mm. ne ay ay ay soi-disant peut-être ay rebelle lañ mm. wala ay terroriste lañ mm. wala dañ bëggoon dem taal Senelec waaw mais yow dama yow waaw que Zahra Iyane Thiam waaw na ne loolu am léegi yow su ma la waa damay ñëw dama lay tontu waaw su ma la tontoo mm-hmm. di nga ko gëm parce que gis naa ne ñi yor mbir mi di ko liggéey wax nañ te gëmuloo leen sagam ñoo ñoo yor mbir mi gëmuloo leen man mii yorul mbir mi bu ma ko laajee <laughs> tontu ci est-ce que di nga ko gëm mais ñëpp ñoo ne ma laajal ñu Zahra Iyane Thiam xam loolu am wala amul ba xam mm. gëm na kaa gëmuloo mais centrale Cap des Biches Senelec biñ ko attaque ba ñi nga xam ne ñoom ñoo yor loolu génn ne yaayu des attaques terroristes man loolu lay jàpp parce man citoyen la du ma ne du ma jàpp ne manipulation la parce que amu ci amuñu ci intéret kon ñun li ñu war ci wàll boobu mooy ñu sant bi ñu amee lu ñu mën a sécuriser parce que loolu bu amoon dina metti ah. ndax ku àttana sectionné câble TER yi nga xam ne mën nañ def lu raw loolu am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko gisandooral suñu bopp événement mars yi ñi ñëwoon génn di tiire ci lieu de commerce yi mais loolu lan la loolu lu mu bokk ak manifestation ñi nga xam ne keroog bi ñuy waaw xam nga lii moo yàq réew mi parce que duñu duñu li ñuy wax dañ koy wax rek pour parler. réew mi oh. war a defar mais nag moo tax ñu ngi ciy def li ñu mën du tere nag li nga xam ne eh, ñu tàggoo mais waaw waaw man non man li war a tax gars yi voteel ñu moom wax nañ ko ba pare li may tàggatoo rek mooy sant leen gërëm leen euh, suñu waxtaan bi tey jàpp naa ne am na solo may ñaax euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal réew mi moo xam jigéen ñi la moo xam ndaw yi la moo xam population yi la de manière générale suñu borom toujours di ñu xiir ci ñuy ràññaatle parce que ràññaatle tey dafa bokk ci motif de développement ndax euh, yàlla dafa def nit ñi ni ñu baree te wute noonu la kenn ku nekk di sàmmee intérêt boppam noonu la kenn ku nekk di jàpp ne la ma bëgg ak fa ma bëgg yegg dama koy jaarale ci yoon bu jub wala dama koy jaarale ci yoon bu jubadi te jàpp naa ne Sénégal ñun ñëpp a ko bokk comme ñun ñëpp a ko bokk ay dëkkandoor lañ ay mbokk lañ nañuy xool li nga xam ne moo gën ci réew mi ñu def ko donte kenn ku nekk dina am sañsañu tànn li mu bëgg ak fa mu bëgg ak nam ko bëggee mais nañuy fexe seq jàmm nañuy fexe yéenante jàmm mais surtout nañuy fexe euh, wéyal di xeex di xëccoo di jongante dans les règles strictes de la démocratie foog naa loolu buñ ko defee rek saa bàyyi askan wi ak xelam saa bu waree tànn mu tànn li ko doy du soxla xuloo du soxla xeex du soxla taal du soxla di jël euh, njabootu jàmbur yi di leen def wala di leen teg foo xam ne bakken mën na ci rot loolu lu metti la lool lool lool ñu ngi ñaan suñu borom mu delloo si suñu xel yi ba nga xam ne yooyu yëpp dinañ ko mën a traverser et puis position stratégique bi suñu réew mi toll muy Sénégal ci li fi am ci li génn ci suuf si ñu mën a am solidarité bu tax dinañu éviter malédiction yu bari yoo xam ne bu feeñee ci réew yu mel noonu daanaka euh, samba booy yiy jóge feneen di ci dugal seen loxo jaarale ko ci ne ci réew mi day bari. waaw ñoo ngi lay euh, gërëm di la jaajëfal ci sa disponibilité di gërëm aussi sa militant yu ñu fekk yëpp di leen ñaanal aussi campagne jàmm Sénégal def seen élection ci jàmm ak salaam di gërëm aussi les internautes yu doon seetaan Sénégal seen émission nay leer